mbokku internet yi bàyyi xel euh, Sénégal Buzz 221 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek saa su ne nu ci ni moo di actualité waaye actualité bi nga xamante ni moo di Fambaye euh, di doomu Sénégal ko fan yee ci ginnaaw à travers les médias ci feebar bi nga xamante ni nag euh, daloon na ko mu doonoon feebar boo xamante ne feebar bu métti la bu ko sénégalais yëpp yéene woon mu am ci tan waaye ginnaaw feebar boobu ki nga xamante ni nag moo di Wally Ballago Seck nag le leader de la musique sénégalaise dugaloon ci loxoom euh, ngir jàppale ko ngir mu faju ba mu yëkkati woon som bu toll ci 15 millions pour jox ko ko waaye ginnaaw 15 euh, millions yooyu nag Fa Mbaye xamal sénégalais looleel noonu mënu koo fecc euh, ginnaaw feebar ba nag ki nga xamante ne nag mooy le président de la république moom ci boppam jël ab dogal fas yéene ko yóbbu fi nga xamante ni moo di bitim réew ngir ñu faj ko waaye ginnaaw loolu lépp nga xamante ni nag def nañ ko ngir yëkkati ki nga xamante ni mooy di Fa Mbaye suñu bakkanam ba tax nag sénégalais yëpp nag yeewoo ci li nga xamante ni moo di naqar ak su ñu leen koy jaalee bu baax a baax a baax moom Fambaye nag ñu ngi xam ne nag génn na réew mi doon faju ji waaye xam nañ ni bitim réew la ñàkkee li nga xamante ni moo di bakkanam li nga xamante ni nag moo di bakkanam mu doon naqar ak tiis bi nga xamante ni nag sénégalais wooti nañu ko euh, ginnaaw euh, ñaari décès yi nga xamante ni am nañu ko ku ci mel ni suñu yaay William euh, joor ak suñu frère Mbaye Sapar Sapar suñu borom nag tegaat ñu naqar kii di Fambaye moom it génn na àddina ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yërëm ko te xaaree ko aljana ñu koy jaal bu baax a baax a baax bépp sénégalais ak bépp doomu juddit rek boo xamante ne yéen woon nga ko moom Fambaye mu delluwaat ak wér gu koy bëggee rek ak ni suñu borom di dogalee suñu borom euh, dogal na Fa Mbaye génn àdduna ñu leen koy jaal bu baax a baax a baax mbokk yi li moo fi nekkoon actualité ñu toppal leen ko ci yeneen xibaar. man xare tey jii xale bii su may wane ci nit du ma wane ci moom lu ñaaw lu rafet lay xool damaa dem ci tiktok am xool photo bi gën a jekk ci moom ma dugal ko ndax ni mu mel jamono jii doy na waar ku jur yërëm ku ko xool xam ne mi ngi dund lu metti am lu metti metti metti metti metti may ñaan yàlla suñu borom moom muy mën tey kattanal tey yëkkati jaamam yàlla na la yëkkati Fa Mbaye yàlla nga dellu siwaat ci sa sago ba dellu siwaat nii nga mel ndax elle a elle droit de la santé elle a droit mu am jëkkër am njaboot te lépp ñàkk ko waral yàlla na yàlla dolli sutura bu ñu feebaree ñu am lu ñu faju ana bon volonté yi Sénégal moo ne de daaw ba ren sunu état Sénégal moo ngi gis xale bii ni mu mel ñu di ko seetaan nan waxante dëgg rek dëgg yàlla la bëgg yàlla rek moo bëgg dëgg daaw ba ren état Sénégal ngi koy seetaan presque deux ans ñuy wax ci feebaru xale bii. waaw léegi nag bu ñu waxee état état faale wuñu pourtant bi fi euh, sunu ustaas amee problème Taïb soose ñëpp a jóg cotiser ku nekk dajale li nga am ba muy cent million ñu fayal ko ko sénégalais yooyu juguñu fi ñoo ngi fi ba léegi. ku bu kenn xeeb daraam nañu boole sunu ay dërëm ak sunu ay tànk lu waay mën def ko te yàlla tax ñu bañ a xaar état mu faj xale bi ñu faj ko te yàlla tax bonne volonté yi du ñu jeex Sénégal bu leen xaar état ndax état bu ci mënoon da bu ko bëggoon a faj faj nañ ko depuis daaw xale bi am na ñaari at ngi ni ñuy wax wax feebaram bi ñu toog di ko seetaan mu war nekk xale bu ndaw ku ko ci juróon ci ñoom ku mu ci doon sa doom di nga jóg doo xaar ku ñu koy wooteel wallu woot wal dafa jot nag tey damay waxee sama xol ndax dama xam lu ci nga ñàkk ba feebar bëgg faju te amuloo ko dama ko dund xam ko ñi ci mën def te yàlla tax def leen te yàlla tax bu leen xaar état senegal ndax seen état Sénégal day seetaan bi mu fi dalee Taïb soose ñëpp a takku doon benn say lu waay am ci bon volonté yi ci senegal ci Europe bi fépp fu waay nekk dangaa jël sa dërëm ak sa ñaar dërëm dajale ko ñu dimbalee ko xale bi mu faju ji ngi lay war a suuli ci jëmmi Seydina Muhammad def leen te yàlla tax ci xale bi méritowul lii man duma dugal mukk photo mi ñaaw yi parce que bu ma ko xoolee sama xol day nekk moo tax ma xool ci TikTok am photo bi gën a rafet ma def ko xam ne lii nii nii la war a delluwaat mel delluwaat ci njabootam delluwaat ci biir société bi te war ñun société bi ñun ñëpp en commençant par man kenn ku ci am sa dërëm ak sa ñaar dërëm nga def ko ci bañ cee état ndax état bu ko mënoon def na ko buñ ko yéene woon faj faj nañ ko bu yàgg fajuñu ko kon ñun doomu sénégalais yi nañu faj suñu